sama kilifa diine yi ma fi fekk di kilifay sëriñ di suñu ay kilifa ñun ñëpp ah, bu ñu ñëwee fii tey li tax ñu ñëw sëriñ bi nga ne ñoo danga ñu invité ci 30 ans wu CCBM ci guddi gi la mu guddi guddi mat na fukki fan ak juróom ci gannaaw defe naa ci njëkkal la tontu ci la bokk ma yónnee la message ne la dinaa ñëw incha allah ci sawet li tax ma ñëw mën naa wax ñett la benn li ngay représenté ci Sénégal ñaar li ngay représenté ci secteur privé ñett gént gu ma la géntal li ngay représenté ci Sénégal ñi fi toog ñoo ko wone sëñ Dan ñoo ngi lay ziar di la nuyu bu ñëwee fii fekk fi Thierno Madani xalif général famille omarien fekk fi waa kër sëñ Touba yëpp sëñ Dan sëtam sëñ Dan Abdoulahat toog fekk fi sëñ Amsa Abdoulahat toog ñaari doomi sëñ Abdoulahat sëñ Cheikh Aliou Daaru Xuddoos yëpp mu représenté leen fekk fi waa kër sëriñ Basiiru sànq sëñ Mbàkke Gelongal njabootam a ngi fi gis naa fi léegi ah rakku euh, waa kër sëñ Baara gis maam Cheikh anam gis naa ko léegi mu jàll waaw euh, di euh, sama rakk ci sama xarit sëñ Bas gis sama doomu baay Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin gis njabootu Serigne Cheikh Bamba Sénégal yëpp a ngi fi waa Serigne Thiéné Ba gis ñépp ku lim jum gis kilifa aada yi grand frère Mbeng gis Sénégal daanaka Serigne est un homme de synthèse ñëpp la bokkal sànq wax nañ ko waa kër Baye ñas toog ndax gis nañu léegi sama xarit PJD Diallo <laughs> sëñ bi ñoo ngi lay ziar gis waa kaw Kaolack yëpp mu ànd ak bi tey nekk taalibe bu mag ah, bu Baye donc Sénégal yëpp a ngi fi toog homme de synthèse noonu it. gis église bi ak seeni représentant donc dinañ ñëw tey buñ ne dañ lay feetal ñu ànd ak Sénégal feetal la ci suñu tur ci turu président de la république président Macky Sall ak ci turu gouvernement mi yëpp daanaka euh, fii bari na fi ay ministre wala ancien ministre sama frère a nga nële maa ngi lay nuyu ah gis tam lépp bu ñu paasee këru dine yi parti politique yëpp ñoo ngi toog opposition pouvoir ñëpp boo wootee monsieur le ministre d'État maa ngi lay nuyu Habib Sy madame le maire gis naa fi sax maireu cees Babacar Diop gis Sénégal yëpp ñëw wuy si la dinaa ñëw tam ci sa wet témoigner ci li ngay représenter ci secteur privé témoignage nag dafa am yaa am na baat bu may dégg ci yow mu neex ma lool ñu daan ànd fu nekk Malaisie Singapour ak fu nekk ànd nañ fa may dégg ci yow ba ma jàng ko par cœur ndax man duma ma ndongol daara mais ci yow laa daan dégg nga naan wama sayit na ila bi ma alim na ne sooy seedee da ngay seede loo xam du la wóor li ma wóor ci yow bari na ci sa diggante ak création de richesse ak création de rêve tout court je dirais que Serigne Mboup est un créateur de rêve ñaata société ñoo génne ci CCBM nekk ay rêve est un créateur de promesses et loolu ah dañuy ñaan mu wéy euh, li tax ma koy wax mooy 1997 mat na ñaar fukki at ak juróom-benn dama toog sama bureau bu ndaw bu nekkoon aan ma nekk agent BCEAO ñu del ñu abale ma ci état Sénégal détachement comme directeur de l'industrie nga ñëw ànd ak sa benn xaritu papa bu tudd Baye Dame Ndiaye nekkit xaritu sam papa man ñu bokk suñu baay daam mu nekkoon directeur COUD administrateur civil mu ñëw ngeen ànd mu ne ma dama lay présenter sa sëriñ buub mii rakk sa rakk la ndax may baayam te yow it may sa baay ñu waxtaan ma ne la ci looy yëngatu nga ne ma man de meew dinaa koy importer ma ne la sëriñ bàyyil importer meew dama bëgg nga am usine meew nañ ci liggéey looloo andi baarale tàccu leen loolu am det moo andi Soclin moo andi CCBM industrie bi nga xam ne tey mooy monter camion yële taxaw moo andi tàccu leen loolu moo andi Samsung fii ci Sodida usine ànd naa fa ak ambassadeur u États-Unis bi fi nekkoon Dan Smith ñu visité la ñu wutal la ay financement ngay liggéey ak coréens yi di monter ay split fii ci Sénégal loolu mooy créateur de rêve ñaata yoon lañu ànd ngay reewe dugal ma ca rêve ba ba rêve ba àndi ay société tàccu leen loolu soo xewalee ñépp dañuy ñëw taxaw li tax nag mu important maa ngi nuyu waa secteur privé yépp président Knessa nga ne toog maa ngi koy nuyu sama goro di nuyu pré ñoom ñëpp rek su ma limee jub club ah Sedima nga ne Babacar Ngom ak président euh, Mbaye Gueye EMG euh, gisoon naa sama grand architecte ah Goudiaby Atepa grand frère basketteur maa ngi lay nuyu waaw homme de presse Tandian Baba donc secteur privé bi li tax mu important ñu war ci di témoigner pour nit ñi di ñëw dañuy ne le secteur privé crée la la richesse ma ne d'accord elle crée la richesse est-ce qu'elle crée des riches ma ne faux c'est le secteur privé national qui crée de la richesse positive et des riches dafa am différence ndax bu ñuy xool rek secteur privé lu mu produire mooy produire loolooy produit intérieur produit la ñuy produire intérieur loolu nag bu fekkee produit intérieur bi enri day enrichir l'extérieur problème am na dafa war di enrichir l'intérieur mais pas l'extérieur am réew lañ fay produire lépp at ak at mooy produit intérieur brut croissance mooy loolu ñaata yoon la yokku mën ngaa am croissance boo xam ne produit intérieur ba extérieur a ko moom bu ko extérieur moomee dañuy ton seen bénéfice yóbbu ca biti donc produit intérieur am na sens wante li ko ëpp sens mooy revenu national brut la ngeen moomal seen bopp loolu leneen la moo tax nañuy tey ci mbir mi produit ñun nag li ñuy liggéey la plan Sénégal émergent wax la président Macky Sall bëgg mooy revenu national brut bi di yokk di gën a yokku li PIB bi di yokk parce que bu PIB bi di yokko te fekk réew ma di gën a riche te ay pauvre dëkk fa problème day nekk donc loolu nañ ci bàyyi xel moo tax ma ne la woon bàyyil di importer meew di produire meew ne ñu bàyyi di importer basin dañuy bàyyi di importer basin ñun suñu defaree coton jaay ko ci biti ñoo ñoo defar basin ñu importer basin bi ñun kañ lañuy am liggéey pour suñu waa kër dëkk boobu la liggéey yi la ñuy loolu defe naa yàgg naa ko di expliquer nañ ci gën di bàyyi xel di ci gën a liggéey ay sëriñ mbuub il en faut un million deux million secteur privé national mooy développé dëkk extérieur mësta développé am réew loolu nañ ciy bàyyi xel ñett dama laa amal gént te foofu laay daanele CCBM industrie la ñu wax man dama laa géntal CCBM habitat président dafa woote cent mille logements président da nañ tabax ci réew mi cent mille logements pour sénégalais yi ku nekk am kër kër gu baax ma géntal la nga defar dix mille logements yàlla la suñu boroom jàppale ba CCBM taxaw ba quarante yi ñu ñëw fii fekk yow yaa ngi toll ci cinquante mille logements yoo defal sénégalais yi jërëjëf merci. ayca mi ngi noonu dama jël jërëjëf. waaye sëriñ Maam Baara Mbakke moom sëriñ Moustapha moom Cheikh Baara yegg si na léegi moom it. ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam mbokkee xarit yi ñu ngi nuyu tamit euh, ki nga xamante ne xaritam la mooy euh, ki nga xamante ne mooy Pierre Atepa Goudiaby architecte moom defe naa ne kenn dootu ko présenté kenn. at euh, monsieur Babacar Ngom bi nga xamante ne moo moom Sedima moom it ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam